yi ñuy wax ci processus électoral bi itam mu ñeel législative yi yooyu yëpp di ay ponk yoo xam ne danañu ci waxtaan ak euh, maître Cheikh Tidiane Touré mu nekk euh, koo xam ne itam kilifa la woon ci réew mi ndax euh, jiite woon na fi COSEC nekkoon itam ku jiite cadre parti démocratique sénégalais maître Cheikh Tidiane ñu ngi lay nuyu am mbégte dalalaat la ci dem ak Tay. maa ngi lay nuyu di leen gërëm di leen sant di rafetlu li nga xamante ne ni mooy. wax ji nga xamante ne nii dañ may interviewé euh, loolu nag dafa nekk loo xamante ne nii à chaque fois que situation dëkk bii am lu mu demee euh, dafa baax mag mat na bàyyi ci réew mais koo xamante ni dundoon na situation yu mel noonu dina wax loo xam ne day jëriñ réew mi loolu moo tax may gërëm suñu doom suñu jigéen suñu journaliste bi Ndeye Fatou Thiam di ko remercier ci fonk bi ma fonk ba di ma tendre micro bi te man lépp luy jëriñ réew mi rek dinaa ko wax mu nekk loo xamante ne nii pour intérêt ñëpp la daal. Mhm. alors ni ma ko waxee tey Sénégal tollu ci tension préélectorale donte ay tànki jàmm ñu ngi ko ciy dox ba dal amandeegum waaye fan yee ñu weesu tàngoon na lool notamment manifestation bi yeewi amoon bala ñuy dem démb xooli la amoon li xew fan yi loo ci jàngat yow. waaw li ma ci jàngat <clears throat> mooy maanaam euh, li nga xam ne moo ko soob. lenn la mën a demee mooy lii nga xamante ne nii élection yi dañu ne il faut que mu am parrainage te parrainage boobu euh, dafa nekk loo xam dañ ko dénoncé woon ba CEDEAO daal di ne parrainage bi dañ koy dañ koy rafetul ñu koy dugal ci système électoral bi nga xam moo nekk senegal loolu nag ba mu amee ah élection yi am ñu dugalaat. nguur gi dugalaat euh, dugal euh, parrainage bi ñu foog ni parrainage bi ci lay yem waaye lépp loo xamante ne ni ragaloon nañ ko ci am na ci déjà bi ñuy déposé lii nga xamante ne ni mooy candidature yi ñaata lañu woon euh, fukk ak juróom ñu éliminé ci ba mu des juróom-ñett ñu continuer dem ba finalement parti ñi nga xamante ne nii opposition bi am solo lool lool lool Sénégal nekk numéro deux ñu éliminer liste euh, proportionnelle am mu nekk loo xamante ne nii Yewwi Askan euh, ba Benno Bokk Yaakaar également ñu supprimer ko pour équilibrer loolu it nekk loo xamante ne nii difficile na nit ñi mënuñu ko nangu loolu daal moo indi li nga xamante mooy pëccëxoo bi indi xuloo bu metti mu nekk lu doy waar. kon moo ne ni Sénégal ba léegi avancé wu torop ci coowu élection surtout processus électoral ndax ba léegi ay werante ñu ngi ciy am ñu dem démb xooli bi président Ablaye Wade nekkee ci opposition président ab Abdou Diouf nekk ci nguur gi euh, affaire maître Sey ñu bari euh, wala ñëpp a ngi koy fàttaliku coow li ci ay élection itam la jóge woon euh, loo ñu mën a wax ci jamono boobu président Diouf nekkee si nguur gi président Ablaye Wade di wut. pouvoir bi moom itam ci wàllu tension électorale. waaw pour euh, loolu dafa am euh, loo xamante ne nii fekke naa ko te mën naa ko ci wax te defe naa loolu sax moo tax ma dugg politique parce que bi nga xamante ni dama jàng ba pare jóge France ñëw bi ma gisee Sénégal ni muy doxee ma xalaat ni lii il faut que ñu changé ko ma daal ne kon boog ah sëgëm ne changement bi démocratie am na kon boog ñu dugg ci parti politique yi ah bi ma xoolee parti bi gën a wóor. mu doon Ablaye Wade ma ñëw dugg ci moom daal di ñëw daal di ne ko ah man daal dama gis loo xamante ne mu ngi dox ci réew mi te du ma jàngi France ba pare ñëw fii gis situation bi demee nii mu nekk loo xamante ne nii vraiment daf ñuy delloo ginnaaw mu ne ma lan nga xalaat ma ne ko léegi daal mooy ñu ñëw sa parti bi représentatif na boo demee élection ndax programme bi di nga ko mën a def mu may spécialiste ci li nga xam mooy infrastructure mu ne ma lool du benn problème yow noo ko gisee ma ne ko ñu bari topp nañ la waaye cadre yi boroom xam-xam yi topp ñu la kon donc il faut que ñu créer benn structure ci la Macky Sall di ñëwee ainsi de suite et tout boobu sax am amagul woon diplôme bi ba ñu koy wax naan ko ma naan Ablaye Wade waaw kii moom amul diplôme li bi pareegul léegi naka lay duggee mu ne ma yow euh, nag bu ñuul boo ci amee <clears throat> loo xamante ne nii comment dire soow bu weex taal meew bu weex taal da koy nangu cadre yi dañu ragal a ñëw mais bu ñu gisee benn jeune bu ñëw bëgg a dugg si automatiquement euh, da ko war a bàyyi. ñu loolu nag ba mu amee ñu dugg nag dugal suñu engagement mais Abdou Diouf mi nga xam mooy yoroon moo doon président la République créé benn système électoral boo xamante ne nii benn booy wote doo indi carte d'identité amul isoloir dara loo xamante ne nii méngoo na ak fichier électoral bi. ñu ñu ñu ñu ñu ñu kii ko ñu trafiqué ko ba finalement élection yi awut si yoon à chaque fois rek ñu def loolu xeex bi day mel ni pëccëxoo bi ah dañuy voté ba dix huit heures wala quatre heures ñu commencé joxe ay résultats. Ah te bureau de vote ba nga nekk kenn joxeegul résultat. pareeguñu voté pareeguñu ña ngay joxe résultat donc mu nekk une situation boo xam ne inimaginable. Ablaye Wade dénoncé ko ñun nag ñu wàcc ci tali bi di xeex. mu nekk xeex yu métti métti. bu ñu daan wàcc élection daan na am euh, aussi jafe-jafe yi ñu am ni tey est-ce que lii am tey mës na am démb. amoon na amoon na amoon na démb amoon na démb de ci situation boo xamante ne nii parce que kenn wóoluwul woon euh, comment dirais-je élection yi ni ñuy demee. parce que di wote ba pare balaa ngay àgg ñuy joxe résultat yi nga ñëw di dugg sa bureau de vote. ñu ne la sa fichier bi inscrit mu nekk jaxasoo boo xamante ne nii dara baaxul woon cee la xeex ba tànge tànge tàng ba occidentaux yeeg yëpp ñëw nag daal di ne léegi nañu jéem a xool naka lañ koy dijjantee abdu Diouf sëgam dafa nekk nit koo xamante ni qu'on le veuille ou non mais nekk na quand même un grand administrateur mu daal di ne bu dee loolu nañu njëkk def mooy ñu woote pour créer benn code électoral consensuel loolu nag la ñu créé ñëpp ànd ci ñu def code boo xamante ne nii balaa ngay vote di nga joxe carte d'identité isoloir am na fichier électoral bi ainsi suite yëpp d'accord nañ ci. loolu nag la mu jur mooy ñaari alternance am na alternance boo xamante ne nii euh, Abdou Diouf gagné nañ ko mu accepté ko Ablaye Wade également ñu gagné ko mu accepté ko. loolu mooy li nga xam moo am bi yàlla defee nag euh, Macky Sall ñëw maanaam ak ya ñu amoon yëpp nag daf ko daf ko daf ko jéggati hmm. amatul woon possibilité indi na parrainage parrainage bi am na difficulté fichier électoral bi baaxul mais euh, euh, au temps de Abdoulaye Wade moom li mu wax mooy bi nga xam ne xuloo bi moom it metti woon na mu daal di nekkoon lan ngeen bëgg ñu ne ko ministre bii nga jël di Ousmane Ngom mooy defar élection yi d'accord wuñ ci. moo nekkoon ministre de l'intérieur. de l'intérieur. Abdoulaye Wade ne lu ngeen bëgg ñu ne ñu wut benn koo xamante ne nii yoonam du nekk ci élection yi mu nekk une personne neutre defe naa ci le général si ñëw ak euh, ñooñu ñu ñëw changer systématiquement système de vote bi loolu daal moo nekk loo xamante ne nii. mën nañ wax ni pëcc xoo ba amoon parce que dara leeru woon bi ñu ñëwee Abdou Diouf amoon na sax sagesse daal di nekkoon boog tamit ñuy def code électoral bu baax après nag Ablaye Wade bi mu ñëwee moom tamit pëcc xoo bi amee mu nekkoon boog nañ changé daal di wut koo xamante ni day indépendant ci la Cheikh Gueye ñëwee nekk directeur des élections loolu daal moo indi leeraay bi léegi nag Macky Sall moom. Euh, bi nga xamee dem nañu ba affaire yi sori ñu constaté que ne parrainage bi baaxul ñu constaté nii am na liste yu bari yoo xam ne dañ leen supprimer ñii ñu indi leen fële mu nar a indi ay xuloo et tout mais nag malheureusement euh, bi nga xamante ni nag war nañu valider ñu gis sorti premier euh, ministre bi de l'intérieur créer une situation boo xamante ne nii am na liste yu bari yu ñu rejeté administration bi bi nga xamante direction générale des élections ña fa nekkoon ñu ngi fi woon ñoom tamit nekk ñoo xamante ne nii tëddunu tëdd boo xamante ne nii war na leer. parce que ñoom tamit euh, créé nañu une situation boo xamante ni rejeté ay liste joué ci ay jeux yoo xamante ne nii automatiquement dafa léser comment dirais-je euh, lii nga xamante ne nii. mooy opposition loolu mu nekk euh, une situation compliquée léegi nag. ñu constaté ni mm, parti dañu regroupé wu ku mel ni par exemple euh, Yewwi Askan Wi nga xam ñoom Khalifa Sall et tout def ci kii benn bokk yaakaar nekk de l'autre côté ñooñu structure yooyu ñoo gënoon a am doole mais ñooñu bu fekkee seen te ñu dindi suppléant yi beneen bi ñu dindi titulaire yi day indi situation bu metti ah ñii rek daal ne lii kenn mën mënu ci demati élection beneen chose bi am mooy troisième mandat bi troisième mandat bi ñoom xam nañu tey jii bu fekkee dem nañu élection assemblée nationale bi benn bokk yaakaar gañe ko Macky Sall li nekk ci bopp bi mooy troisième mandat dina fexe ba changé waat système bi par l' assemblée nationale pour que ñu limitation de mandat avec troisième yooyu yëpp ñu dindi mu mën a def troisième mandat loolu nag moo indi confusion boo xamante ne nii jàppante bee xeex bee yëpp am. kon kon enjeu wu élection yi di ñëw mooy euh, problème mu 2024 euh, mandat wu président Macky Sall ñu ñu wax ni kon dafa bëgg a représenté waat dinañ ci ñëwaat nu mu gën a yaatoo mais ñu des ci démb président Abdoulaye Wade bi mu nekkee ci opposition bi yantension électoral électorale Sénégal dund yoo xam ne tiitaloon na nit ñi ci ci fitna ci ay jàppante bu bu bu jéggi sax euh, peut-être jour vote bi wala problème yi amoon ci fichier bi mais lu jiitu élection coow daan na am ba dëkk bi yëngu. waaw loolu li ko indi woon Abdoulaye Wade bon xam na ni tey nit ñi dañ ko jàppale ba mu falu mais bi mu faloo nag moom tamit mu dem ba ci digg bi. Euh, def premier mandat deuxième mandat bi bi mu koy def mu amoon ay ñu bari ñoo xam ne dañ leen a éliminer woon mu am ay problème yu mag après nag situation bi jaxasoo aussi bon Abdoulaye Wade nag étant donné que moom tamit euh, dafa nekk koo xamante ne nii intellectuel la day am yu bari da koy accepter mm. d'accord na pour que ñu xoolaat situation bi revenir dans le bon parce que li ci nekk ba nekk ci mooy boo gisee Ablaye Wade sax alternance bi euh, mën a am bu ñu demee ba nga xamante yi fi sori na dafa discuter dafa jox assurance Abdou Diouf ne ko man su ma la gañee li ngay ragal du ma ci dem di la jàpp di la poursuivre ainsi de suite ah Abdou Diouf daal ne ko bu dee loolu kat kon nañu wut ñoo xam mën nañu garantir loolu booba Chirac xaritu ab Diouf la woon Chirac dox ci diggante bi ñu xam ni ab Ablaye Wade bés boo jëlee pouvoir bi sa posture yooyu da koy teg ci suuf loolu gën na apaiser situation bi permettre na alternance am léegi nag CRA bi ñuy dund tey xam nañu principal parti d'opposition mooy Yewwi Askan bi te Ousmane Sonko nit ñi teg nañ ko bopp jeunes yi bëgg nañ ko te moom je peux dire que ni jàng na te am na ay idées yu leer prouvé na ko au niveau de l'Assemblée nationale et tout ça ah Macky Sall la xam ne kii euh, bu ñu deful attention dina jël réew mi mais Macky amul assurance bii nga xamante ne ni Ablaye Wade joxoon na ko euh, Abdou Abdou Diouf parce que Sonko bu ma ñëwee dinañ leen audité dinañ leen lii dinañ leen lële yow nag boo nekkee ci pouvoir xam ne lii bu ma fa jógee ci karso bi laay ñëw kon da ngay da ngay défendre situation. da nga siy ngooy loolu nag moo indi confusion bi. léegi sax xam nga euh, bi euh, Sonko biñ ko dàqee biñ ko dàqee mu daal di ñëw ne léegi sëgam loi bi permettre na ko mu dugg ordre des experts ah mu def demande am ba mu ñëwee bi ñu xamee ni sonk la gars ñi dañ doon euh, jaaxle daal ma ne leen nag li ci nekk ba nekk ci loi bi permettre na ko parce que def na quinze ans comme inspecteur des impôts war na mën nekk expert dañ ko war a valider ah xuloo bi kii bi ba finalement ñu valider ko mu nekk expert kon diggante boobu dafa génn rek nekk expert automatiquement di liggéey élection yi ci topp mu nekk député bon donc kon moom pertul dara ci radiation bi euh, non non perte le contraire parce que bi mu nekkee <clears throat> expert aussi bon xam nga c'est une personne boo xamante li muy def mën na ko xam na ko donc amoon na ay possibilités di gagner vie am di dundal njabootam te du dépendre ci kenn moom financièrement il était indépendant te bi mu ñëwee système bi mu créé dafa permettre nit ñi ci seen bopp comment dirais-je lépp loo xamante ni soxla nañ ko. dañuy cotiser seen biir or régime mu Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade dañ daan fay nit ñi ñuy mën a am possibilité di la woteel mais kii dañu wax ay militants yoo xam dañuy indi seen xaalis pour kii ko mu am indépendance financière bo léegi nag li tax yëf yi gën a jafe Macky Sall la xam na ni tey ji bu perte pouvoir bi automatiquement day am situation boo xamante ne ku moytuwul waxuma la moom de waaye ñi ko wër ak ñu bari dina dem prison loolu nag mooy difficulté bu mag bi man nee woon naa euh, bu yàlla defee ma gisanteeg euh, Sonko dinaa ko ne na alléger système bi parce que li am solo mooy alternance fi am waaye nag alternance bu fekkee war na am nga ne kii nga xamante ni bu ma ko remplacer dinaa ko yóbbu kii dinañ ko lii moom itamit day day fippu confusion bi yëpp foofu la nekk. am na ñuy dox ay tànki jàmm euh, kilifa diine yi ak euh, yenn euh, ñu bokk ci société civile bi ba xëy na manifestation bi waroon am keroog àllarba ba mujjuta am mais est-ce que ragaloo yeneen fitna gannaaw législative bi bu ñu jubee surtout 2024. ah oui kooku moom li nekk ba nekk faut que Macky Sall aussi am assurance ni bu nekkatul président dina mën rëcc wala dina nekk ci jàmm. loolu moom Habib Sy junj na ko keroog waaye Sonko ak ñeneen ñi dañu ko puus ne euh, ne ko reddition des comptes. mooy traque des biens mal acquis bi bi fi président Macky Sall sumboon itam. xam nga Habib Sy mag la doyen lañ koy wax maa moom ñoo yem fekk nañu démb ba alternance am bu fekkoon ni joxuñu woon at ci cuuf ay garantie ba Chirac dugg ci tout ce qui s'ensuit kon tey jii xeex lay mujje alternance dina am peut-être mais ce sera vraiment ci situation boo xam ne kenn du ko ah, bëgg. donc pour a déstabiliser réew mi da nga jàpp ne noonu la ñu war a doxalee. waaw cest à xam nga euh, sëgëm tamit Macky dafa def erreur yu bari jàpp ñiy tëj jàpp Karim Wade tëj tëj tëj tëj ba nga xam ni kii nag nit ku ci nekk nag danaan da ngay am vengeance la yëndi waaye waxtaanu biir suuf ci biir néeg mën na am te ti am nañ ci kilifa yu mag. ku mel ni sëriñu tiijaan bi kii noonu sëriñu murit bi mm. ah, mën nañu mais ah, Macky sëgam situation bi dem dañuy te sa mandat day jeex mais bàyyi ñu dem élection dans la paix léegi nag bu jeexee yow boo pertee le contraire dinañ def de telle sorte que erreur yi nga defoon naka lañ koy lijjantee tout sax Macky Sall bu amoon garantie boobu defe naa du yàgg ci pouvoir bi. du wax wax troisième mandat. du wax troisième mandat mais problème bi ci nekk mooy bàyyi ba pare ñu lay tëj tëj say mbokk loolu la ragal. te yow da nga gis ne Sonko moom am na ay chance su nekk président. parce que ci Sonko moom <coughs> président sam moom nekk na loo xamante ne nii lu taxaw la. Hmm. parce que njàng mi war am na ko. te def na lu bari lu politiciens yi deful mooy bind benn livre boo xam ne daal sama programme ngi nii te programme ba mu bind kenn mënu ko dindi te xam na ni également ay France ak yooyu seen problème tey jii mooy tey jii ak guerre Russie bi naka la def ba génn ci pétrole Sénégal euh, gazu Sénégal nekk na ci loo xamante ni enjeu bu mag la pour que ñoom ñu ne ci. xam nga ni kon ñooñu li leen gënaloon Macky Sall defaat troisième mandat ñu ferme ñu ñu gëmm seen bët. te Sonko wax na leen ko nee na moom bu ñëwee léegi contrat yi nga xamante ni amoon na yëpp gagnant gagnant lay doon ku ci nekk da ci gis sa bopp bon loolu nag est-ce que. arrangé na tubaab yi est-ce que arrangé wul tubaab yi te tubaab yi aussi dañu dañu dañu ragal ku mel ni Sonko parce que xoolal di am Mali xoolal tey jii soldats yi ni ñu demee Guinée ainsi de suite et tout cela mu nekk loo xamante ni instabilité bi muy jur dina nekk loo xamante ni ëllëg ak si biir vraiment mën na leen perturber sur toute la ligne donc enjeu yi dafa bari enjeux yi bari na bari boo xamante ni y sur le plan international les intérêts occidentaux sur le plan euh, comment dirais-je ci biir élection yi également ni muy doxee et tout ce qui s'ensuit ak Sonko déclaration bi et tout cela moo tax bi nga xamante ne nii gis nañ loolu te Habib gisoon na démb bërki démb li fi amoon mm-hmm. mu daal di ne am naa yaakaar ni war na jox ay assurance yoo xamante leptoo feyoo du ma fi mën a am. laa defe naa ni buñ ko defoon am naa yaakaar nekk te peuple bi aussi parce que ñun bi ñuy def politique euh, c'est vrai mais tey jii xale yi fi ne li ñuy vivre ak situation bi di mu mel. bés bi jot ñu ne sàcc nañu lii ëllëg ci ñu ne def nañ lii di dem gis ñoo xamante ne nii ay géwal lañu ne géwal lañu président di yor ay ay milliards si seen kër ainsi de suite yëpp dafa nekk loo xamante ne nii dafa compliquer situation bi. te Sonko it bu reculer daal ne loolu nañ ko teg ci suuf automatiquement peuple dañ koy mere. Mm-hmm. parce que dañ ko naan xaalis bi ñu yor defar ko ba pare mu am ñu ko jël kon bokk le problème se pose pas donc yëf yi ci biir bi yëf am na loo xamante ne nii il faut que mu ñu leeral ko. Mm-hmm. mais leeral bi nag mënul jëm kaw il faut que mu nekk loo xamante ne nii nitu diine yi fi nekk di sëriñ yoo xamante nii ci dëgg la ñu nekk ñu jëm a xool naka lañ koy arranger. jox ko ci nekk assurance nga xamante ni dina nekk loo xamante ne dina nekk lu baax Sénégal. mais est bu yàggee tam loolu dina jig réew mi euh, indexé wu ma kenn mais bu fekkente ni dafa am ñuy ñëw jël alalu réew mi def ci naka sudul noonu dem bu ñëwee jox la nay assurance du mujj fenn keneen ñëwaat defaat noonu bu ñu waree defaat transition wala euh, alternance ñu ñu joxaat kay assurance mu dem ndax bu yàggee tam réew mi du dugg ci guut euh, économie. loolu moom lu leer la. parce que bu fekkee ni nit ñëw na def na lu mu loo xamante ni waru ko def sur le plan financier et tout ça bo kon boog kooku am naa yaakaar ni bu ñëwee bu fekkee ni alternance am na ñooñu war nañu automatiquement rendre compte kooku c'est mais dafa am loo gis dafa am temps booy wut jiital loolu ki fi nekk danaan duma dem mais bu fekkee jox nga assurance daal ne ni li ñu fi def nekk na loo xam def nañ ko mais ni ñu mën a def rek mooy sëgam dëkk bi dafa ndóol li ñu jël ñu xool naka lañ koy remboursé ainsi de suite yooyu technique la yoo xamante ne nii day dalal xel ñi fi nekkoon def li ñu war a def te day permettre également tubaab yi fi nekkoon di def li nga xamante ni warul ñoom it ñu jox leen assurance conjonction affaire boobu yëpp nag am na nu ñu koy doxaleen noo xamante il faut que mu am de l'expérience pour que yëf si mën a sotti mais tey jii Sénégal fu mu toll moom alternance bi moom euh, c'est inévitable mm. te nit koo xamante ne nii Sonko képp koo xamante nii dugg naan moom élection tey dina la gañe ba si législative yi nga xam ne eh, Yewwi finalement décidé na ne dafay dem ak liste euh, suppléant am Benno di dem ak liste euh, titulaire am yow loolu loo ciy séentu comme résultat li ma ko gisee mooy local yi ñu def parti local yi ba ñu demee élection ak situation ñu mel Yewwi bi li mu am bu ñu totaliser li euh, li Macky Sall am yépp dépassé wul 47 48 pour cent te loolu bu doon élection présidentielle du ñu def deuxième tour. mais Benno Benno ñoom bu ñu wàññee dañuy ne ñoom ñoo ëppale te bu doon élection tey ñoom ñooy gagné premier tour. loolu xam nañ ni. Mm. ay wax la yoo xamante ni mënul ne. parce ah, que ñoom nee nañ bu ñu wàññee communes yi yu yu gën a bëri ñoom ñoo ko yor peut-être ñële gagné nañu ay grandes villes mais communes yu ëpp ñoom ñoo ko yor. masse électorale bi ñi voteel ñële ñoo ëpp fuuf. ñoom ci commune yi la ñu basé wu or corps électoral bi woteel ñële ça n'a rien à il ils sont majeurs à plus de cinquante et un cinquante deux pour cent léegi nag loolu bu amee automatiquement deuxième tour day am parce que majorité bi ñuy wax mënul ne te xam nañ ko te bu ñu demee mu am deuxième tour automatiquement dañuy perte voilà la situation mais nag li bokk ci un ministre de l'intérieur boo xamante il n'hésite pas a donné un résultat favorable ak camp bi mu far fichier électoral boo xamante ne nii parrainage yi wane na ci insuffisance am parce que nit ki day ñëw ak lépp lu mu am ñu ne ko kii baaxul kii nekkul ci fichier bi te buñ ko contrôler dara du ci dëkk. kon boog yooyu mooy situation bi mais en dehors de cela les jeunes que j'ai vus le peuple parce que principal ennemi Macky Sall mooy le coût de la vie. Mm-hmm. diwlin yi. ceeb bi seeraay bi mu cher ainsi de suite nekk na loo xamante ni dund boobu kooku mooy li nga xamante ni mag yi mënu ko parce que situation bi ni mu demee la parce que am na ñoo xam ne yëguñu ko ils sont à l'aise mais loolu dafa touché Sénégalais yi te képp koo xamante ne nii bëgg nga euh, euh, bëggoo Sonko bëggoo dara mais tu es par le fait que la vie est chère et tu à tous les niveaux man expert la ñoo ngi góor di kii ay mag lañu yàlla may nañu ñu am kër am fi ñu dëkk am lu ñuy yor. mais bu ma la nee troisième âge bi ñoo yor kër yi. soo ko ba léegi. kër yi ba léegi ñooy fay ndox ñooy fay courant ñooy fay lépp. ñooy joxe dépense ñooy joxe dépense ak lépp troisième âge yi. te waroon retraité non te waroon retraité toog tëdd nelaw maa ngi nii soixante quinze ans ba tey maa ngi liggéey su ma liggéeyee nu muy demee te loolu. sëgëm yàlla def na ma am une certaine organisation am na yàlla li mu nu jàppale et tout ça mën nañ ci génn waaye c'est pas évident pour tout le monde mm-hmm. ancien ministre ak ñi yeneen directeur généraux yu yàgg yi effectivement se trouve dans la même situation waxatuma laat nag ñi nga xamante ni ñu nga ci dëkk ba àll ba wala yooyu vie bi cher boo xamante ne nii kooku n'est pas favorable pour que Macky Sall jëlaat un deuxième tour. ñu bëri jàpp ni loolu moo taxaat sax immigration clandestine bi. très bien loolu loolu moo ko tax. parce que tey jii li xew barki démb Maroc mais ku mu jaaxalul da tiit te tey jii lépp mën nañ ko am dëkk boo xamante ni ndox mi jafewul courant bi jafewul am na électricité am na kii nu mu lu bari loo xamante ni yàlla jox nañu ko mais nag bu fekkee yëpp dañ koy jël transféré ko jox ko tubaab yi. mais de l'autre côté on se retrouve dans des situations te yoon ñu xam nañ ko loolu nag mooy situation bi léegi nag bu ñu dajee ku mel ni Sonko muy expliquer déjà infrastructure yi ñu def ñu ne la terre bi tant la waroon coûter lii la coûter lii lañ def ainsi suite loolu day nekk loo xamante ne nii pour gagner ko dans ces conditions day jafe voilà donc la situation ki fait tey jii euh, ku mel ni Sonko nit ñi teg nañ ko bopp te li ñuy gën di dem nag muy gën di métti te nag li ci nekk mooy problème mu sécurité sécurité bi mooy ñiy def politique ak ñëpp war nañu am sécurité boo xamante ne nii étatique lay doon état bi hmm. warul rek assuréel nu mu tuddati sécurité waaw ku mel ni Sonko ku mel ni les hommes politiques war na leen jox assurance boo xamante ne nii defal leen sécurité parce que lépp lu ci am rek lu metti day répercuté négativement c'est ça man noonu laa ko gisee. léegi nag nit ñi li ñu mooy bu fekkee ñi xam nañ ni bu ñu perte pouvoir dañ leen di tëj. mën nañ fexe créer une situation ba finalement transférer pouvoir bi armée bi. loolu it am na ñu koy ragal. am na ñu koy ragal. mais nag man li ma xalaat mooy ñoom armée républicaine bi ñu parce que armée bi dañu jàng am ci ay officiers yu responsable masse bi ci boppam ak ñun ni ñuy dundee li ñuy dund parce que ñoom it soldats yi ngay gis yëpp dañuy jënd dañuy fay luwaas dañuy fay lu nekk dëkk bi dur ci ñoom loolu mooy schéma bi donc à l'heure actuelle man je crois que ni loolu il faut que ñu teg ci tànk jéem xool nag li seen émission Demb ngeen di teewlu ci de émission seen émission Demb ak ngeen di teewlu ci réew Rewmi FM ñuy waxtaanee tension politique euh, préélectorale wala post-électorale yi nga xam ne daan na am euh, ci Sénégal alors ñu wax ba tey ci wàllu élection euh, ci jamono yi dañuy dégg sàcc élection mënatul am Sénégal ndax loolu gëm nga ko bu ñu xoolee fichier électoral beeg jafe-jafe yi ci am yépp ñu bëri sax di wax ay résultats préfabriqués ñu fàttaliku élection présidentielle ba ñu waxoon ni nangami candidat ñooy am candidat yooyu lañ am ñu waxoon itam benn taux boo xam ni daanaka euh, sorewul dara dara ak li génn euh, démb itam ñu doon wax ay sàcc élection président Ablaye Wade yàgg na ko xeex maa gañe ñu foqati ko ci samay loxo da nga gis ni Sénégal ba tey mu ngi ci jafe-jafe yooyu wala avancement am na. xam nga avancement amoon na bi nga xamante ni xeex nañu ba ñu am code bu bees code Kéba Mbaye. bi fichier bi sax demoon na ba finalement pour centage bi nga xamante ni mooy indi problème yi. Euh, presque réglé woon nañ ko. mais avec fichier électoral bu bees bi ñu indi. Hmm. ak inscription bi. Hmm. ak situation bi ni mu demee. Macky Sall bu ñu ko bàyyee mu def deuxième mandat dem élection. dina gagné élection yi parce que tout est faux là-bas. ah bon delluwaat ginnaaw ci li ñu liggéeyoon yëpp. yëpp am kon Kéba Mbaye jàpp nga ne nekkatu fi parce que fichier bi tey yii ñëpp ngi naan fichier bu correct la bu honnête mais am na stock mort am na loo xamante ni nekk na ci biir. mais révisé woon nañ ko dindi nañ. mais révision bi révision bi dafa montrer ses limites. te man quand waxuma pour wax ni parce que nekkoon naa fi responsable des élections au xam nañu fichier bi ci boppam képp ku ci dem dans ces conditions là à la dernière minute di nga jooy fu jooy amul. loolu mais même bi moo may yeewi yenn yenn localités yi ci ci élections locales yi. xam nga stratégie la. Ah. ñoom lu leen neex la ñuy def parce que tey jii yow booy def parrainage ñu génne la ay fichiers yoo xamante ne nii ne la kii ak kii nekkul ci liste électorale bi. nga contrôler ko baaxul te fichier yi dafa am au moins doublon hmm. parce que fichier bi nekk ci ñoom ak fichier yi nekk fële ça fait deux te li ma ragal mooy fichier bi bu ñu ci demee nit dina dem bëgg a voté ñu ne surtout nekku fi. waaw loolu yàgg na am élection législative 2017. bëri na ñoo xam ne voté wuñu. voté wuñu loolu nag mooy indi situation bu compliquée loolu moo tax man li ma xalaatoon mooy élection yi ñu repousser ko reprendra les tenants et les aboutissants xoolaat fichier bi ba nga xamante ni tane na automatiquement mu wóor la wóor yàlla ni kii gagné dina gagné mais fii dina nekk loo xamante ne nii euh, man sans bopp fichier bi wóoluwuma ko direction générale des élections wóoluwuma ko ministre de l'intérieur wóoluwuma ko justice bi nag ñëw ñoom ñëpp xam nañ ni justice bi ni muy doxalee tëddeewul njaaxaanaay condition yooyu ñoo nar a taal dëkk bi loolu mooy situation bi moo tax tey jii na Macky Sall fexe ba bu mu dugg bu mu def euh, troisième mandat am na sax ku ma ni waaw Macky Sall bu présenté wul mais bu présenté jabar ji lu ngeen di wax ma leen euh, jabar ji waaw ma ne ko loolu nag euh, bi ñuy réviser avec euh, comment Kéba mbay bi ñuy xoolaat système électoral bi yooyu daf ko rejeté kenn mënul nekk ba troisième degré nga remplacer président bi fi nekkoon kooku moom c'est réglé mais sëgëm fii moom da ngay xëy suba rek ni cëpp ne lay loolu mooy problème bi à point que man sama sama vision nekk na loo xamante ne nii euh, bu lépp awoon yoon fichier bi correcté et tout cela Macky Sall pour mu am bi mu njëkkee dem élection vingt cinq vingt six pour cent la te exercer na pouvoir bi ak ñi mu àndal ñëpp te yëf yi gën di naqari à tous les tous les secteurs dafa am problème. mais lan mooy waral lan moo waral rôle ñu bëri nee nañu réew mi avancé wul euh, démocratie bi moom kenn waxatu ko dafa nërmeelu lan mooy jafe-jafe bi ci sa mais jafe-jafe bi mooy lépp lu ñu teg rek dañ ko teg d'une manière boo xamante ne nii ñoom koom-koomu réew bi yëpp dafa nekk ci ay loxo yoo xamante ne nii en principe bu ñu ay sénégalais boo jëlee li nga xamante ne nii mooy zircon bi. façon exploitation bi agriculture bi ainsi de suite et tout cela mais nit ñi ci nekk lépp lu ñu am du bénéficier wu pour Sénégalais yi on le gère pas te man je pense que tey jii mënoon nañu def de tell sorte que Sénégal waratu la am benn parce que on a toutes les conditions réunies man je suis expert li ñuy importer ceeb beeg yëpp ba tey ñu ngi koy importer mais c'est extrêmement grave loolu nag mooy mooy situation bi donc bu fekkee ni da ngay jaay dara am ci bénéfice bénéfice bu du Sénégal day dem à l'étranger produit yi gën di cher loolu mooy situation bi deuxièmement mooy tollu nañ ci foo xamante ne nii pour que ñu mën ci génn il faut impérativement ñu changer systématiquement fondamentaux économiques sinon day nekk loo xamante ne nii lu jafe lay doon bu nit ñi d'accordul ci élection yi dinañ am problème ci lekk dinañ am problème ci lii te léegi aujourd'hui ñëpp ne nañu woon électricité bi rek la nañ koy tout ça boo gisoon gymnastique bi ñuy def. Hmm. coupure sa tàmbaliwaat na. Sendou benn centrale à charbon lañ fa defoon boo gisee difficulté yi mu nekkee kenn xamul mu mel ba léegi sax Euh, structure yi nga xamante ni ñu ngi ñu ngi liggéey ci charbon bi ñuy indi dinañ jaay lekk courant bi donc ce qui veut dire que ni coupure yi non seulement dina commencé mais dañu ne woon am na benn bateau turc buñ fi indi woon kooku dafa régler temporairement mais tey jii en fin de mandat on se rend que ni électricité bi ça va être très très difficile à gérer et facteurs yëpp a yokk ndox mi électricité bi lekk gi ak naan gi loolu nekk loo xamante ne nii pour jéggi ko pour mën a trouver un équilibre day difficile de vous à moi madame defe naa ñii li leen doon may chance sëgam dem nañu ba nga xamante ni mënatuñu dem mu am échec partout ñu pousse rapidement beneen équipe jàll équipe boobu bu ñëwee bu deful lu Sénégalais yi bëgg ñu pousse ko dem jële ñeneen ba keroog dëkk bi évoluer waaye toog rek di piétiner di tëgg sa tànk ci benn ki maa fi nekk maa fi mën et tout ce qui s'ensuit c'est pas possible li ngay wax tey ak li ngay wax ëllëg du benn man daa baaxul tey jii la nga waxoon yëpp waar baa ngi fi mu nekk loo xamante ne ni inimaginable. mais pourtant pouvoir bi ñoom suñuy évaluer dañuy gis ne quand même réew mi dox na terre bi mu ngi fii ak euh, yeneen infrastructure yi nga xam ne tamit ñoo ngi génn nit yi di leen gis muy améliorer circulation bi loolu itam jàppoo ne lu ñu mën a teg loxo la. xam nga en fin de compte projet yooyu projet Ablaye Wade la woon te ñun ñoo ko initié woon au temps de Ablaye Wade train bële moo fi amoon ñu waroon. waaw loolu la waroon jël essaimé ko mu couvrir tout le Sénégal loolu moo doon jëf mais dañu indi terre bi terre bi boo ko jëlee ak liñ ci dépensé boo demee quelque temps terre bi day taxaw parce que courant bi koy dawal ak li nga xam moo koy war a kii du mën a tee dem terre bi ces jours sont comptés. Ah taxaw. parce que électricité bi koy mën a alimenter mooy problème bi euh, circulation interne bi bis yooyu ñu bëgg a indi pour DER bi DER la am léegi loolu. BRT BRT du moins nekk loo xamante ne nii bon ñun bi nga xamante ne nii xalaat nañ ko dañu woon genre tramway la ñuy def. Mm. nga xam ne kenn du toj kenn du def lii. ay raay la ñuy jël sécuriser ko mu daal dem fii BRT bi dañu toj yëpp circulation bi jafe na te en plus ça le transport ne suit pas bus yi mënuñu satisfaire léegi moo tax clando yi bëri euh, moto yi bari mu nekk une situation boo xamante ne nii kenn xamul euh, naka la nit ñi naka lañ ñu génne. Mhm. alors suñ ko doy natt ci wàllu démocratie nag euh, ñu bari itam jàpp ne réew mi avancé wu ci ndax ku bëgg a marche ñu tere la ko boole ci reprimer marche bi ba ay bakkan di ci rot boo ko méngaleeg démb est-ce que Sénégal def na ay jéego. non non Sénégal nag li ma wóorte wóor mooy li ñu investir pour permettre euh, nu mu tuddati jox ko armée jox ko euh, alkaati yi pour ñu réprimer pour population loolu n'a rien à et loolu amélioré wul dem bi ak dikk bi ak avantage yi nga xam ne moo ci nekk loolu mooy situation bi donc man je crois que euh, ñun ba ñuy xeex ba ñu demee ba tollu ci fexe nañ ba am code consensuel avec Kéba Mbaye et tout ça ñaari alternance am fi waaye fii alternance bi toll na foo xamante ne nii pour mu am day jafe parce que fichier beeg ñiy organiser élection beeg direction générale des élections ñoom ñëpp dañu far te dañu am logique bu ñuy doxal loolu nag bu amee ci dëkk bi confrontation mooy am te confrontation bu amee kan moo ci génn. confrontation yi mooy marche yeeg euh, ñi ci loru danga nga jàpp ne dañu war a bàyyi nit ñi kon ñu marche. ndax li am am na ba pare. c'est-à-dire sëgam euh, di am na ba pare te euh, constitution bi dafa permettre nit ñi di di dox. di la mais sa mais. automatiquement il faut nga wax ko waaye ñoom nag seen problème mooy mobilisation bi amoon réunion bale kii nu mu tati meeting bale opposition bi defoon mobilisation boobu dafa tiital tubaab yi tiital leen ñoom et tout ça noo tax bëggatuñu mobilisation bu mel noonu ñu koy wone di montrer la supériorité comment dirais-je de l'opposition loolu mooy seen problème moo tax ñuy faagaagal di arrêter di c'est parce que li ñu am ci alkaati kooku mën na waxuma la encadrer manifestation mais mën na encadrer sax nu mu tuddati euh, loo ëpp ay manifestation kooku j'en suis sûr démarche yeew yi nag noo ko gisee xaw nañoo yolomal tuuti ndax manifestation bi waroon am àllarba bële maa ngi koy wax sànq bàyyi nañ ko mais noo gisee seen doxalin tey ñu wootee concert de casserole ëllëg xëy na dinañu génnee stratégie bu bees politiquement boo ko méngaleeg démb est-ce que opposition bi Macky Sall jàkkaarlool tey muy yeewi amoon na démb peut diggante président Diouf ak président Wade. loolu. yàgg na fi. waaw léegi léegi léegi buñ ko gisee noonu erreur lay doon. Hmm. parce que mécontentement bi day gën di bari. difficulté yi day gën di bari. contexte yi moo dul benn. contexte yi moo dul benn. te population bi ma gis c'est des jeunes. dañu naan xale yi ñu jël di leen exploité et tout ça kooku erreur la xale bu dugg ci biir c'est parce que àddinaam dafa sombre mënul dem mënul dikk ñu li ñu jot ci ay ren ay ay ay demande yoo xamante inimaginable boo gisee man dans mon cabinet ma embauché au moins quatre ou cinq personnes mm. foofu yoo xamante ne nii da leen di jàngal liggéey yi pour leen mais balaa nga leen di fay sax liggéey ba ngay ñu lay jox pour nga kii ko c'est tout un problème yépp jël nañ ko jox ko tubaab yi étranger yi ça pose des problème sérieux loolu nag mooy indi situation boo xamante ne nii pour ñu geere ko c'est tout un problème ñoom malgré leur bonne volonté mais am na loo xamante ne nii euh, euh, euh, mënul dem mënul dem xam nga tey jii ñu ngi si nawet bi daaw nee nañu woon inondation yeeg yëpp réglé nañ ko ren bu taw bi multiplier woo day mel ni dara defuñu fi dara yooyu yëpp nag c'est regrettable ça pose des problèmes très sérieux d'équilibre dans la société médecins yi ku ci feebar ñu ngi lay yóbbu à l'étranger pour nit ñi mën a faju mu ngi am malade inimaginable man barki démb sama frère feebar na fi fonctionnaire la de mais li ma dépensé kenn xam plus de cinq cent mille dépensé naa ko pour uniquement entre garab yi muy jënd fii ainsi de suite et pourtant fonctionnaire loolu kan moo am moyen yooyu pour def ko population bu mënul mënul régler loolu donc injustice bi dafa bari te réalité bi nga xamante moo am euh, comment dirais-je dañ ko nëbb nit ñi à tel point que sur les faits lay feeñi essence bi yokku na te dañuy bu nu bloqué wul woon kon beneen niveau lay nekk. Mm-hmm. te yooyu yëpp c'est très sombre te je suis vraiment très mais loolu itam mun nañoo nangu ne contexte mondial la parce que àddina fépp a metti guerre Ukraine bi boole ci ñu ngi jógee ci crise sanitaire boo xam ne crise économique la jur muy Covid bi daanaka sax jeexagul mi ngi mi ngi yëgluwaat est-ce que itam loolu nañu ko nangul tuuti régime bi fi nekk. waaw régime bi fi nekk en fin de compte loolu c'est xam nga Covid bi. France sax ñu ngi naan Covid bi mu ngi dellusiwaat dafa nekk loo xamante ne ni defe naa Sénégal tollu woon na ci point boo xamante ni bu commencé woon na di ko maîtriser les tenants et les aboutissants mais boo demee ña doon faj ak ñu doon def yëpp seen xol neexul parce que ils sont dit que ni dañ leen relayer la waxoon yëpp amul dara duñ ci réglé boo jógee ci loolu euh, secteur boo mënti jël y des insuffisances y a des problèmes léegi nag nit ñi bu la déggee ngay wax dañuy foog ni yow en fin de compte da nga opposé wu wala quelque chose comme ça Macky ni mu jëlee réew mi peuple bi yépp ànd ak moom ak ni mu koy doxalee à l'heure actuelle je peux dire que ni au moins moitié population bi gëmatuñu li muy def te booy liggéey nag ba tollu ba foofu defe naa ni il est temps nga jéem xool effectivement quelle stratégie prendre. justement tey ñaari at yi des ci mandaawam bi boo ko doon digal mu am lu muy jubbanteeg lu muy joyante ci réew mi lan lay doon. Euh, fexe ba lii nga xamante ni nit ñi yaakaar nañ ko mais équipe bi bu ñëwee mu yëf yi mën a changé mu mbañ ci teg gàllankoor wala mu ci teg doole. renforcer la démocratie renforcer nit ñi seen droit ñu def ko. et puis par la suite nag ñu jéem a xool parce que ñaari at yi bon bu fekkee dafa bëgg tabax ay stade ak yooyu yooyu c'est très beau c'est bien ça c'est une bonne chose mais nit ñi seen vécu permanent dafa nekk lu am solo parce que à l'heure actuelle heureusement sax euh, Sénégal ba tey ñu ngi lekk ay cere fondé ak yooyu yooyu parce que euh, gars yi bu ñu mettee ba metti même emploi waaw maître daal du tey daal kii lay kii ma ko waaw cere boo ko jëndee la mu ne ci cent cinquante franc cere boo ko jëndee rek sa biir day fees dell <laughs> loolu sax may may na nit ñi mm. d'une manière ou d'une autre mm. chance bi mën évoluer mais crise mondiale bi c'est une chose mm. mais am na approche boo xamante ne nii buñ ko doxalee woon defe naa ni yëf yi dina gën a gën a gën a wa dina gën a oyof loolu mooy problème bi mm-hmm. alors xanaa ñu bàyyi la rek nga tëj maître Cheikh léegi bon euh, li ma leen di wax rek mooy en fin de compte man di may wax tëbuma rek di wax dama am vécu parce que ku nekkoon étudiant dem nekk ak Ablaye Wade kàng mu dëkk bi yëpp aw nañ suñu wax ba président bi ma nekk ma nekkoon kilifaam di évoluer xam nañu ak xeex bi ñu xeex donc tey jii su ma sañoon mu gën a oyofal teeñ bi gën a discuter ak opposition bi ñu arrêté ay position yoo xamante ni ëllëg ak ci biir képp ku fi mën a ñëw dina nekk lu leer mm. waaye bu fekkee ni élection yi ñu jëm ñu ngi ci bëgg a dugal ay njuuj njaaj ak yooyu mm. euh, jël ay ministre de l'intérieur bi comme ni ma ko gisee et tout cela ak direction des élections yi ak ni ñu ko bëgg a loolu du jëmale réew mi kanam loolu mooy li nga xamante ni maa ngi koy ñaan te qu'on le veuille su ma xamul woon sax président Diomaye yow mm. fii nga toog yàgg na fay ñëw ah waa këram yi ñu baax lañu Marième Faye Sall yooyu bi ko Macky di tàkk ñoo ko dem takki woon waaye nag ñi nga xamante jege woon nañ ko te mën koo wax dëgg dañ ko sori ba finalement am na lu leen naqari te bu ñu sañoon Sénégal ni mu ko fekke woon sax mu delloo ko ci waaye recul démocratique bi nekk na loo xamante ni entaché na lu bari di ñaan yàlla nag euh, mag ñu baax ñu fi nekk ak ñaan yi nga xamante ne nii mën nañ ko continuer ñu ñaan ko suñu dëkk bi waaye nag li wóor te wóor Sénégal fi mu toll keneen du ñëw tabaxal na ko. ñun rek ñoo amoon nañu mbégte itam dalal la ci démb ak tay bi euh, ñu doon waxtaanee tension politique waaye itam tolluwaay jamono méngale koog démb li fi daan am notamment bi nga ànd ak président Abdoulaye wàdd muy wut nguur ba ni mu toogee ci bopp réew mi ba ni mu fi jóge ndax démb tax ñu naan tey te loo seet tey itam boo gëstoo démb rek da ngay gis lu mel noonu euh, fàttaliku gi nag xëy na dana tax ñu mën a gis ay yoon yoo xam ne danañu génne ci jafe-jafe yi ñu nekk di ñaan jàmm itam ci réew mi fàttali nekkoon nga njiital cadre yu parti démocratique euh, sénégalais tey ngay expert euh, ci wàllu maritime ak lépp lu aju ci transport logistique ñu ngi lay gërëm gërëm ñu doon déglu gërëm jaawo jàlloo mi fare woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom loon ci kàddu gi dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaane leneen ak keneen teewluwaat leen émission bi si suñu chaîne YouTube mi officiel ñu yendoog jàmm